jotaay bii tey ku ko gis xam ni yàlla fay na sëñ Tuubaa de xoolal ni ko escorté woon muy dem Ndar moom mu bokk ceew diib taalibe ànd ñu ñëw nuyu la yàlla fay na sëñ bi di yeesal suñu kóolute ak suñu njébbal ci yow di am yaakaar lool ci yow itam ndax yaay Serigne Touba ci kaw suuf. te ñun loolu rek liñ gëm di la sant di la gërëm itam di la sant di la gërëm Mbàkke di yëg bis bu nekk itam li ngay ñaan yi ngay ñaanal réew mi ñu koy gis bis bu ne di ko yëg bis bu ne di yëg itam ñaan yi ngay ñaanal gendarmerie nationale eh, ndax liggéey bi jafe na bu ñu demee ba ci mën a def yenn yi du suñu jàmbaar ñaan gi la ndax saa bu ma fi duggee bu ma génnaatee damay defe ne gaynde bu taxawee ci sama kanam sax war naa mën a jaar ci kawam dem loolu nag kóolute la eh, moo tax bu lu mel ni xewee dañuy dellu si woon la ni liggéey bi lépp loo nga xam ni mbirum sécurité la dañ cee bëgg a dalal sa xel ci li nga xam ne nii gendarmerie moo ko yore am pàcc bu ci police yor am pàcc bu ci gendarmerie yore waaye li nga xam ne gendarmerie moo ko yore moom boo tëddee man ngaa nelaw ndax loolu moom duñ ko caaxaane te xam nañ dëkk bi xam nañ li mu laaj mooy yombalal nit ñi ñu ñëw ak lu mu mënti metti metti léegi wax naa leen ko réunion nee naa leen saxaar gi bu ñu taxawee ne bu kenn taxaw ci biir loolu ay waxu caaxaan. kenn yéeg ci kaw toit ba waaw kañ ndax boo yéegee ci kaw man ngaa daanu waaye nag moom fi ne lu mën a indi nit Touba rek moom loolu moom wax dëgg yàlla lu war yombal la li nga xam ni nit ki da koy def te du daanu bakkanam man cee des wala mu gaañu ci loolu moom tolérance la il faut ñuy xam ni xër am ñoom ci sëriñ tuubaa loolu nag il faut ñu yombalal leen ko di leen ci dimbaliitam itam nee naa leen aussi ñuy bañ topp mer ndax ki nga xam ni dafa ànd ak xadaram jóg boo ko toppee ci xadar bi mën ngeen a jote mais da ngay xam ne rek la ko yëkkatee ko ñor nga yombalal ko ko di ko ci dimbali itam ba mu egg maanaam fi ne nii daal moom lépp loo nga xam ne jot na ci sécurité parce que fii fukki escadron lañ fi doon indi mais ren ji maa ngi fi indi ñaar fukki escadron ak juróom ndax xam naa ni nawet lañu ne dëkk bi dina gën a xat insécurité bi mën naa bari moo tax ñu def ko vingt cinq escadron waaw pour mu mën a mate bagage yi ñu doon teg ci tali bi aussi gën nañ ko yokk maanaam lépp loo nga xam daal war nañ koo fàggu pour ñi ñëw mën a ñëw jàmm mën a dellu ci jàmm ñi nekk ci dëkk bi aussi nekk ci sécurité parce que Sénégal dafa toll foo xam ni sécurité jarul fooye ndax euh, fu ne mën na faa génne te day génne it foo ko foogewul waaye ñun daal pàcc yi nga xam ñun ñoo ko moom moom loolu moom maa ngi ciy dalal sa xel bu baax ndax président de la république jox nañu ci ay instructions yu leer nañ yoo nga xam ni ñun tamit jël nañ ci ay matuwaay yoo nga xam ni yaakaar nañ ni daal ak sëg ñaan ak yaakaar ju ñu bokk ñun ñëpp am ko ci Serigne Touba yaakaar naa ni màggal gi dinañ ko def ci jàmm ak salaam mu romb ci jàmm ak salaam bari na ñuy tëkku nag mais loolu na sama xel dal parce que kiy nara jëf du wax am na loo nga xam ni ki ko nara def du ko wax wax ji bari na waaye fii moom yaakaar naa ni kuy tëb di jéem a yàq màggal gi yaakaar naa ni yaa yàqu loolu moom mooy lu wóor ñun nag jël nañ suñuy matuwaay pour loolu ndax saay-saay moom dafa bari pexe waaw mais jël nañ ci suñuy matuwaay te borom bis bi itam yaakaar naa ni ab bisam ñi ne fii ci kaw suuf tuuti nañ lool pour mën koo yàq loolu moom boo xamee boo xamee dëkk bi ak boroom am na loo xam bu ko nit di wax dalay defi ree ndax xañ na dañoo xamul ki moom bis bi boo xamee ki moom bis bi nga ni man damay yàq lu tuubaa yaakaar naa ni danga xamul boroom bis bi mooy kan ndax fi mu jaar yaakaar naa ni bu amoon ñu ko mën a yàq ñun duñu fi toog tey yàlla ko aaral boppam Eh, ñun nag dañ ci teg suñu loxo nii rek di ko mottali waaye moom ay mbiram aaral na ko boppam ba pare ñu am ci yaakaar loolu itam nag Mbàkke ci yow ci lu bëri ci ñaan yi ngay ñaan réew mi ci ñaa jàmm ji ngay sàkku ci réew mi wala umpul kenn te ñun kuy sàkku jàmm rek ñun ngay dimbali parce que ñun bu jàmm amee ñu mën a am suñu bakkan bu jàmm amul suñu bakkan day xaw a jafe kenn ku ne gis na réew mi li fi xew temps yi yëpp Euh, ñàkk jàmm doo nga ko indi ndax bu jàmm amee gendarme yi am jàmm bu jàmm amul nag gendarme mënul am jàmm ñu ngi sàkku nga gën ñu ci ñaanal di ñaanal yàlla gën a yokk saw fan ba ci kanam ak kanam Mbàkke nga gën a wér euh, gën di ñaanal Sénégal loolu daal moo nekkoon tànk yi ñu ñuy jóg dama ne woon dinaa la indiwaaleel am ndox lii ay butéelu ndox la moom lañ indiwaale woon yii itam xañ na nit ñi yaakaar nañ ni mbir mi jàll na waaye yaakaar naa ni am na njariñ ba léegi parce que am na ñu koy sàkku ak yi nga xam ni xañ na léeg nit ñi duñu am ndox waaye ku amul ndox moom mën na ci fomp lii itam ay mouchoir la yoo nga xam ni dafa ànd ak alcool ak yëpp boo ko fompoo boo laalul ndox it mën naa waa lii daal lañ indiwaale woon Mbacke di la sant di la gërëm nga baal ma nag ci kàddu gu gudd bi maa ngi koy jéggalu bu baax ndax waruma wax sa kanam. am na mbégte lool ci kàddu yi lool. mu ne dégg na itam bu baax a baax. mu ne gën nañ cee xam seen yéene ak seen pësteef ak seen yitte. mu ne te loolu rek mooy li am solo. mu ne kon jërëjëf. nee mi ngi sant bu baax a baax. di gën a am yaakaar bu baax. mu ne di gën a am xel mu baax ci ni ko ni nga ko waxee. mu ne di gën a am xel mu dal bu baax. ci ni nga ko waxee yow. mu ne dégg na ko nii. mu ne wóoloo na noonu. mu ne xelam it dal na ci bu baax. li tax gën xel mi gën a dal mooy sa sa jëmm sa jëmm ji yow. mu ne loolu alhamdulilahi rabil alamin li tax xel mi gën a dal mooy sa jëmm ji yow. mu ne ndax am nañ lu ñu xam ci yow. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. mu ne lool lu ci am solo la. kilifa kilifa yàlla ndax kilifa yàlla moo koy def. mu ne kilifa it dafa am ay jikkoy boppam yu war a nekk ci moom. mu ne jikko yooyu am nañ ci yaakaar ci yow. mu ne xelam dal na mu baax day ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy def ak dindi mu sàmm leen te aar leen. mu ne suñu borom miy def ak dindi mu gàttandu leen ak tawféex sëñ Tuubaa ba jàmm ji ngeen bëgg. mu ne yàlla defal defal defal ñu ko. defalal ñu ko boppam. mu ne loolu mu ngi leen koy ñaanal baax. mu ne nu nga ko waxee rek gendarme bu mu rek ñëpp mucc. mu ne kon mu ngi ñaan yàlla sàmm leen bu baax te gàttandu leen mu ne ba gàttandu leen ba lépp lu ngay liggéey suñ suñu borom defal leen ci ndam defal leen ci barke itam mu ne te mu ne te nit ki lu mu jub yàlla tax lu mu jug mu ne lépp lu mu juk te yàlla rek tax mu di ko def faw barke wàcc ci mu ne kon noonu rek la demee mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi mu ne xelam dal na bu baax jërëjëf sant ñi nga àndal ñépp nag ndax xam na ne nee na ñi nga àndal yéen a bokk jublu gi yéen a bokk yéene ji waaw waaw waaw waaw Modou waaw mu ne Modou moom la woon lay Mbacké lay Mbacké sa doom في سفر يعلى ماهن مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه